ak dayoo bi ak ni nga mel ci réew mi ak ki nga ñàkk nu ree moo tax tey mu defal la délégation bu mag bile ma nekk fi nag ak sama ñaari kilifa di Abdoul maam Fama ak Cheikh Thierno Ndiaye ñoom ñépp samay bàyyi lañu kon cëru bi tey dama leen koy delloo nu doxal ndax dëgg-dëgg Amadou Mbaye Garmi sama maam daal nee daal dëgg-dëgg rakk day topp mag doom topp bàyyi kon cër bi yépp tegaat naa ko ci Abdou Aziz sama mag ju baax jële bisimilah Abdou Aziz sëriñ ak Ahmed Khalifa Niass nga tegal nu ci mbokk yi ak njabodu Seydi Lamine di ñaan yàlla yàlla na suuf sedd ci kawam di ñaan yàlla njaboot gi fi ci bu ma bëggee di wax day jafe ndax ay waxkat ñi war wax ñoom laa àndal damay rek ci seeni wax pour mën a yeggali li nga xame ni que man maa ko dund expérience ak yow kay sama mag di sama sëriñ di sama xarit dinaa ci yegg Abdou Aziz Garmi jërëjëf da nga wax baat bu am solo Ki moo làmboo xam-xam da nga ko wax kii moo làmboo xam-xam ba boroom xam-xam yi reconnaître ko kon kii ku ñëw ci moom ñëw nga fi ci cër yu bare xam-xam bi jóge ci sunu diine ak àdduna mooy li saraka ju baax ji doon tuddee diine ak jamono yow yàlla mboo boo xam-xam ñu ngi lay jaal Sidi Lamine sa rakk ju baax ji na ma ko waxee sa ju am njariñ ji gis nga sëriñ bi bërki dem si si guddi billaahi wallaahi maa ngi jooy Sidi Lamine ba léegi Mara Dieng mii daf ma yónnee benn vidéo boo xam ne dañuy jógoon ñun dem seeti ji ko ma déglu touti li ma wax waaye ma dégluwaat ko j'ai pleuré encore pour wan la euh, Sidi Lamine ni mu toll ci ñun dugg na ci histoire moom mémoire collective dugg na ci loolu dootul dañ man xam naa ko rawatina ñii nga xame ni que ñi ci ëpp ci ñoom ci kër ga lañu jaare mën nañ ci tudd ku mel ni Souleymane Niang mën nañ ci tudd Alaaji Assane Gueye mën nañ ci tudd Charles Faye mi buñ doon lim du jeex jaar ci école bi am une bonne formation et un bon encadrement ba tey doon li ñu doon ba ñu mën leen a soxla mën a dugg ci lii wax naa ko man su ma duggee ci wàllu euh, communication Sidi Lamine ñas la ak Babacar Touré ndax na ma ko waxee woon mag bu yoree flambeau war na bu gestoo seen ay rakam pare pour téye flambeau boobu loolu nag moo ñu dal tey ndax yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko moo dogal bi mu dogalee ñu nangu ko tey li nga xamee ni que moo fi ne muy flamme boobu nga xamee ni Sidi Lamine daf koo taal ñun ñëpp rawatina liggéeykat yi dañu am pour jàpp ko pour mën ko jëmale kanam pour lampe boobu bañ a fay mukk kon nag ñu ngi lay jaal di la gërëm di la sant beneen bi mooy yow sama mag nga sama xarit nga damay jël ñaar bu njëkk bi dangaa jël woy woy wooma sa kër gi booba kër gi mi ngi pare euh, pare nga ko yeggale yaa ngi fii ci cité bi nekk euh, booru Wokam nga wooma ma indi chanteur waaw fi la régal nekk léegi nga indi chanteur bu joge Mauritanie indi guitare way way dañu nekk ci dëj sax kon ma way ko way la pare way wi mélodie bi way ci Cheikh Ahmadou Bamba mooy way bi may wax naan Cheikh Ahmadou Bamba yéem na ma man de waaru naa ci bàmba moom mii lañ ko way ak xolam bu rafet ak yéene parce que àdduna yéene rek la def ko parewu ma mu ne ma kaay ma dugg ci néeg bi mu yëkkati carte grise ak caabi oto yu bees tàq kenn dawalu ko ne ma demal ma ne ko dama koy wax de mu ne ma doo ko wax ñaar yooyu rek laa jël yaa baax yaa mën sa rakk te boole woo ci wax fu mu taree nga woo ma jox ma conseil ba ma sama candidature xam nga fàttewuma la la ma wax de ca guddi ga yow yaa baax yow yaa ma yéene mënuma woon bañ a wax loolu ndax ku dul fàttaliku doo gor kon nag ñëw naa fi ci cër yooyu yëpp di la gërëm di la sant ñaas ñi ñu àndal du sax moitié kër gi ndax nag média la nu yore ah, bu ñëpp demee média ba fay moo tax ñuy toog mais gisal ni groupe Futurs Médias plus de 400 personnes nous ñoo toog fii parce que ku toog fii rek am ñoo représenté ay kilifa ñoo tok fi té ñom ñëpp am nañu ay services yo xamné ay nit fa sëriñ bi nga ñaanal ñu ndax sa ñaan day dal xamna la nga ñaanal ñu ndax ñun dañu nekk ci réew mi yore entreprise entreprise bu am solo ñu dem ba bokk kook wa réew mi loolu lu baax la nga ñaanal ñu ñas maa ngi lay gërëm di la sant ni nga toll rek ak sa dayuwaay rek moo tax ñu def délégation bi ñëw jaale si la jëkkee fii nag buñ fi jógee yegg ci kër ga jërëjëf ñas